salaa wa salaama wa baraka alayhillah fi alihi wa sahbi wa kulli man tala wa usikum fihi wa baadahu bi mulazamati ma axtira lakum min al axlaaqi wal aqaid wal aqwali wal afaali li wajhi llahi tabaraka wa taala alqaid wa axadirukum fihi wa baadahu min an fili ma lam yuxtar lakum min al ibadati wal aadat fa innama xtaarahu llahu tabaraka wa taala lakum huwa al jaamiu li saadat fa tuuba liman la yaltafitu ila gayri rabbi mulaziman ma axtira lahu min munir lubbi wa innama qaad wa iblisu ila ma shaa fa innahu yulazimu ma axaza wa asa qaala allahu tabaraka wa taala wa ma ataakum wa rasul fa xudu wa qaala allahu tabaraka wa taala fa man yamal qaatatin xayran yara fa tuuba liman axada ma ataa bi rasul alayhi bi alihi wa sahbihi salaama muti suul wa dilladi himmatuhu yartaqi ilal xayri laa ilal qadari wa dayri وإن لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقاه wa usikum ayuha al ixwaan loo ci man kafaani dawil xasadi wal udwaan bi an laa tufaariqu maxte lakum abada fi na mufaaraqatahu tajuru ilaykum abalaman raman wa kabada wa anhaakum an fiili ma kulli ma lam yatabayan lakum kawnahu assawaab fa innahu ma yuwajjihu ila xayrikum al ajra wa thawaab wala tatlubu al karama bi xayri taqwa fa inna al karama huwa taqwa wala tatlubu al-izzata min ghayri al-azizi al-mu'izzi bi jaahi abdihi nabiyihi wa rasulihi al-aaz fa inna man adbara an illahi tabaraka wa taala ila siwa tarakahu maa nafsihi wa hawa wa man aqbala ila allahi tabaraka wa taala maa al-wasila qaada ilayhi kulla ma kaana yartaqi ilayhi min al-jamila yaa ayyuha naasu ubudu rabbakum ittaqillaha haythu kuntum man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhiri falyaqul khayran aw liyasmut qad axbarani rasulullahi sala alayhi taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama anna kulla man taaba min ummatihi qabla mawtihi fa innahu yashfau fihi inda mamiti mayti wa an man lam yatub minhu tawbatan nasuha faqad amarahu man awaazahu nasiha rabbana la tuzig qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم allahu akbar allahu akbar allahu akbar alhamdulilahi alladi jaala yowma alciidi yowma tawsiati wa tafrixi wal itlaaq wasalaatu wasalaamu ala man axrajana min zulmati aljahli walshirki walnifaaq walimlaaq sayidna mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi dawil wifaaq wa ala man tabiahum bi ihsaanin fi jumlati alafaaq amma baadu fa hada alyowmu yowmun mubaarak wa lana fiihi shay'un fiihi lam nusaarak fa ahmadu llah tabaraka wa taala ala man jaada ala ma jaada bihi fiihi للمنتقى عليه السلام أو بجميع مقتفي فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وأتقن بفضل من جاء بفتق الأتق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يصبر بكل ما لم ما من الخير يصطفيه فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم دائره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم ذوي الطغيان wa tawajjahu ila rabbikum bil kitaabi wa sunnati wal ijmaa fa inna allaha tabaraka wa taala yakfikum man abu fihi l ijtimaa bi jaahi dawil dil ghazawaati l murdiya sallallahu taala alayhi bi alihi wa alihi dawil ardiya alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya lawla hadana allah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu shariikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun min ad-dhull subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin mbokk yi sëriñ bi na asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu ñu ngi nuyu baax a baax di leen ziar. waaw di leen baal àq sëriñ bi ne mi ngi leen mi ngi leen di balu àq di leen baal àq itam. te ñaan yàlla di bokkal boon jëkkal ñëpp. te ñaan yàlla sunu borom mu boole ñu jéggal ñëpp. kon loolu tamit nuyoo bi ñu ñu ci jiital si euh, euh, Cheikh Mountakha. nee na loolu lay doon nuyoo bi ñu jiital jiital jiital Serigne Mountakha mi nga xam ne moom teg yàlla teg muy borom Tuubaa. te di ci dëkk Cheikh Baraka. di ci teg li nga xam ne mooy si Abdou Barak bi nga xam ne moo nekkal Sëriñ Fallou. waaw waaw waaw leen di a baax ñoom ak yoonu yàlla yàggal seen ko ñoom. ñu ànd ko ñoom. ak ñëpp ñu mel ni ñoom xam ne ñëpp ak ñoom rek ñëpp kilifa. waaw ñoom kilifa yëpp rek. xam nañu xam ci xam nañu xam nañ leen ci salal bu baax a baax. ak dëgg ak dëggal. ak dëggal. xam dëggël moo moo war a bis bii. te dëggal moo war a bis bis bii dëggal moom moo moo bokk na ci li koy firndeel. bis bii dëggal bokk na ci li koy firndeel. xam ne yaakaar naa at yëpp ci baax nañ ci ak dañ ci na at yëpp ñu ngi ciy ah, yaakaar naa lañ ci wax tey dañ koy dolli jël dañ ci daan wax ci at yi. waaw ndax dëggal moom de mooy moom mooy mooy a a firnde bi daal de mm, moom daal yaakaar naa jotu sax dañ koy mm-hmm. mooy li war. Mm-hmm. jamono boo nag ñu ngi wax daanaka jarul sax di baam tey waxaat nañ ko ba waxaat nañ ko ba ay ay yoon. ndax nit moom lu nekk lu mu rek ci dëggalu ji lu mu nekk te hmm. li nga xam ne moom lañ bëgg. te ab julli moom mooy jiitu ci dëggal a jiitu. ndax ki nga xam ne moom a jiitu ci dëggal mooy ab jullit. ci ci ji ci jëfam ak ci ci yëppam rek. ci ay jëfam ak ci waxam ak daal dafa dëppoo ji koy jullit. ji lépp dafa war a dëppoo dëppoo ak jikko jullit. daanaka sa amiram sax su ko gisee nga war a xam kii ab jullit la. waaw dana boo gisee moo lay boo ko xoolee da xam kii ab jullit du wala du ab jullit. yow. ci lu muy wax yow sax. ci ci ci meloom rek. ci meloom rek. ab jullit noonu noonu la war a mel. ab jullit sëriñ bi naan noonu la war a mel. kon nag suñu kilifa yi ñu loolu yàlla loolu yàlla baax noonu foo la ñoom foo la ñu ngi foofa. non sëriñ suñ suñu kilifa yi nekk suñu kanam moom ñu ngi foofu ñoom ñoom ñoo nga fa. ñu ñoom rek ñoo xam ne ñenn ñi rek ñooy ñooy def a jàdd la waaw ñenn ñi topp ci ñoom rek a jàdd tax moo waral nag sax wax yenn yi ñu ñu nag. moo waral tax ñu ñu yedd ñenn ñi nga xam xelam day topp ci sëriñ bi te te te tey doxee neen na sëñ looloo tax sëriñ bi ñu ngi leen di yet loolu dëgg ñoom daal seen bànneex la ñuy doxee seen bànneexu bakkan la ñuy doxee su fekkoon dañuy dañuy dañuy topp ci sëñ bi bi nga xam ne ci moom lañ sës su fekkoon ci sëñ bi ñu sës la topp dañ ko war a toppee rek waaw mu teg tànk fu mu teg seen tànk mu seen teg teg tànk rek kon kon lépp baax kon kon lépp baax insha allah kon amaana amaana kon eh, yenn yenn yedd yi du du du ko yenn xupaate yi. dootu am ndax ñëpp dañoo ne ci dëgg moo tax. waaye nag loolu la yàlla dogal nag jamono yi moom dafa soppiku lool. ndax loolu la yàlla dogal jamono ji dafa soppiku lool. ba ba ba ñuy topp ñuy toppee daal ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñu ci bëri ñoo ñoo ñoo nekk ci yoon wala fi mu ne nii. sëriñ nee na ñuy topp sax nag ñu ci bëri ñoo nekk ci yoon. waaw moo tax ñu leen di wax di wax ak ñoom jamono bu nekk. te loolu day ndax seen bopp ndax sa bopp rek la. te loolu ndax sa bopp dong la. ndax ndax ndax xam nañu ku nit ki. Euh, Euh, ni ko waxee sax ni ko waxee rek nit ko li mu li mu wuyoo ni ko wax li ko war di waxee rek. waaw man di ko war di waxee rek nit ko li mu wuyoo da ko niroo. waaw tawakkal li mu wuyoo da ko niroo mu leer nañ. su ko defut nag day nax boppam. bu ko defut nag ala kulli xaal nax boppam donc mu la cay teg. lu mu yàgg-yàgg rek du ci ci su su su yomal xeeba ci lay xawee ne. li mu nekkoon dëgg. loolu mu doon def nag bu yomal xee amee ci lay xam ne li mu nekkoon dëgg lañ ko doon digal mooy dëgg. waaw kon nag kon yàlla yàlla musal ci loolu ñun. yàlla na yàlla musal ci loolu. yàlla yàlla teg ci waan ñu ànd ak kii topp kilifa yi te ànd ak ñoom ci ci yàlla yal na nu yàlla teg ci yoonu topp kilifa yi ànd ak ñoom ci lu ñuy wax ak lu ñuy jëf. waaw solo.

lislaam nangu ko te te jamono ji nag ñu ngi ciy wax di coow du am benn njëriñ te loolu nag ñi ñi julli nag nay nay moytu ci loolu nag julli gi dëgg yi waaw ñun li dëgg nag ñoom ñoom euh, leen war rek mooy nekk ci dëgg bañ geesu seen seen leen lu leen di lor. Hmm. xam ne àdduna àdduna am solo. xam ne àdduna amul solo. dëggal nag ñuy fàggoo euh, la ñuy alaxira. la ñuy ci fàggu wu jaadu. waaye nag ci fàggu teef wu jaadu. lu yàlla digle ak lu lim tere. lu dëppoo li yàlla digle te it lim tere ñu bàyyi ko bu baax a baax. yooyu yooyu tamit yooyu yëpp ay ay fàttali waaw xëy eh. na loolu ay waaye li nga xam ne moom la yàlla waaye xam nañ jamono fi mu toll moom léegi. waaw sëriñ bi nag jam xam na nag jamono fii mu toll xelum doomu aadama. xelum doomu aadama. xarañ xarañ yàlla may. xereñ yàlla may doomu aadama. yàlla moom ko. mu xa mu xa xamee ne xamee na njëriñam ak ak loram. kon nag lu waay def moom moo moo ko du ñaax rek. kon lu ndax ko ni ko waxee rek. xereñ xereñ doomu aadama. waaw na foofu wees na. xereñ doomu aadama jàll na foofu. waaw yàlla yàlla yàlla yàlla baaxee kii boobu. waaw foofu la ñu wutee baaxee may mooy xel lañ wuuteeg bàyyi ma yi. waaw ci xale yi ji xale yi sukkandikoo ci la ñuy sukkandiku. bay dund ci àdduna bi. bay dund ci àdduna bi. kon nag am na yenn yoo xam ne su ko def rek. ci seen seen seen sag seen teel ak seen saggante. kon am na yenn yoo xam ne képp ko def rek. na nga xam ne saggante. ak ak tey moo la ko teg. waaw kon nag kon ci loolu rek ñu ñu ñu ñu delluwaat lañ ni ko baax a waxee rek. kon sëñ bi ne la. ci loolu la ñu delluwaat ci ni ko baax a waxee rek. di gën a ñu gën a góorgóorlu ci yar yar gone yi rek. di gën a góorgóorlu bu baax ci yar gone yi. ci ci te mooy tër bi nga xam ne yi ñu xamoon si yoon murit yi xamoon ñun. ci tarbiya bi ñu xamoon ci yoonu murit rek man jàngal lu ko. gën ci jàpp di yeesal ko daal yeesal ko. Ah, jàpp bu baax te gën koo yeesal baax baax mu gën a sell. mooy mooy ci bu baax rek mooy. ci ah, loolu léegi xam nañ ne moo moo moo yu bari su su amee rek yu bari daan ci mucc. Ah, ndax dinañ ko hmm. bari incha allah yu bari hmm. euh, ñàkk ñàkk leen teg ci yoon woo rek mooy waral ñu def yenn yi. waaw tout tànk yu bari hmm. li leen ñàkk a teg ci yoon mooy ñàkk leen a yar teg leen ci yoon rek. waaw ndax moo moo waral sax ñuy dugg ci dugg ci dugg fi ne nii. ndax moo waral sax ñuy dugg ci loo xam ne waruñ caa dugg. kon nag ñu ñaan rek ñëpp kon di gën gën a sukkandiku ci tarbiya yow rek. ñu ne kon ñu ñaan ñëpp sukkandiku tarbiya. Hmm. parce que def sellal bu baax a baax di leen yar gone yi. yar bu baax a baax di leen jàngal alxuraan di leen jàngal tam xam-xam. waaw ndax xam nañ ni euh, euh, tout tànk moom mooy lépp. ndax tout tànk mooy lépp. Euh, ci ci ci mooy ci ci la ci la ci la ñuy def lu bëgg lu lu ñu bëgg rek ci tout tànk lañ koy jaarale. moo waral ñu ñenn ñenn ñoom su àddina ñoom ñoom dañu ko jëkkanteeg ñun. waaw moo tax ñu daal dañu ñoom ñoom ñu si loo xam ñoom ñoom si ñoom dañu ciy def ñoom. ñoom ñu ngi ciy def li ñu mën. ci di di di moo tax ñoom moo la julli ji daal xaw xaw xaw a sagan ci wàll boobu. waaw mu ne julli yi nag ñoo sagan sàggan ci loolu waaye yi def li nga kon nag ne kon nañ dafa daal ñu war ci euh, jugaat ju ju yees. kon nag nag il faut que dañ cee war a ngir aar aar leen. ngir aar leen. sàmm leen sàmm leen. ndax ñoo ñooy ñooy euh, ñoo war a wutu ci des. ndax ñoom ñoo war a wutu mag ah, te xale moom bu bu bu bu dafa def rek. xamee ni ñu xamee rek mel ni garab garab rek garab ah, gone nag dafa mel ne rek garab garab boo ko soo jëmbat rek soo ko soo rek da nga ci nga koy jubbanti soo ko soo jëmbat ci nga koy jub bala moo bala moo eh, moo màgg bala moo màgg waaw su xasee màgg na moom jubbanti day daal daal di weesu kon xam nañ ko tey waaw ah, sëñ bi ah, xam naa bisu Tabaski hmm. moo tax dañ koy gàttal foofu rek di ñaanal ñëpp. waaw di ñaanal tamit euh, xam ne daaw ren moom ba tey na fi am na fi mbokk yu bari fi fi fi yu làqu-làqu. sëriñ bi bari na fi mbokk bari yu dem suñu kon ñu ñaan yàlla yërëm leen. ñoo ñaan suñu borom yërëm leen. jégal leen. fekki. waaw te te ñu a fekki loolu nan leen yeex a fekki itam nag waaw te yàlla ba ñoom barke ci bàyyi ñoom ñëpp yàlla barkeel njaboot gi ci bàyyi ñëpp itam te yàlla may gudd fan nu gudd yaram ak texe àdduna ak te fekk fekk déwén nag kenn bañ a woote déwén waaw ñëpp fekk déwén kenn bañ a woote ak suñu toog ñëpp na toog ko doon baaxoo def rek bu baax a baax ndax it lii jafe na lool wax dëgg yàlla mbooloo mu toll nii nga jiitu leen wax dëgg yàlla leen wax lu baax leen digal lu baax nu it noo ngi lay sant bu baax a baax di ñaan nga yàgg bu baax a baax di ñaan ko Sëriñ Fall mi si kilifa moo def ci yow li ko gënul ma gudd fan wér di yàgg liggéey islam ñun ñëpp nu